waaw gaa yi machine bi dëgër na bopp waaye man it tey ko bàyyi loolu <laughs> man tey moom ah, machine bi dëgër na bopp lool waaye du ma ko bàyyi noonu suñu waxtaan bi il faut ñu ko waaw kon nag ñu bàyyi leen ngeen dugg en attendant ma dellu si ak euh, Oumar Pène ñu xool ce que don donne naa sama waaw kon ñu ngi leen bàyyi ngeen dugaat parce que li ñuy waxtaanee am na solo lool ñu bëgg a ay message euh, nañu joxe message waaw du ma mën a jël appel yi fi mu nekk nii waaw donc dugg leen bu baax rek dinañu waxtaan tey machine bi dëgër na bopp waaye duñ ko bàyyi noonu parce que li ñu war a waxtaanee dafa am solo te il faut ñu waxtaanee ko tey jërëjëf gars yi merci de votre constance de votre persévérance nii la waaw technique yi kenn maîtriser wu ko et c'est assez difficile waaw jërëjëf waaw dinañu continuer waxtaan bi ba ñépp xam ne situation dëkk bi fi mu toll dafa laaj vraiment ñu waxtaanee ko ut ci ay solution waaw waaw Salim Cissé jërëjëf toujours présent waaw kontaan nañu waaw est-ce que baax na léegi daal je pense que y a pas de problème on a trouvé une autre solution partagez leen live bi partagez leen live pour nit ñi xam ne on a repris partagé waaw partagé le live nit ñi xam ne on a repris jërëjëf waaw nii la waaw gars yi daal jàmbaar lañu kenn découragé wu ñëpp a ngi dellu si c'est très bien merci beaucoup. loolu la de. est-ce que leer na bi yoon formidable jaajëf gars merci kontaan naa waaw Moustapha merci beaucoup jërëjëf radiateur waaw merci waxtaan bi dafa am solo tey parce que réew dafa am foo xam ne bu fa tolloo euh, nit ñi dañu war a prononcer wu ñu xam ban gis-gis la ñu am dinañ wax ci lépp wax ci dialogue bi wax niñ ko gisee wax euh, suñu position wax euh, conséquences yi am fii fan la jóge ak maintenant fan la ñuy jaar ba ut ay solution waaw fan la ñuy jaar parce que aussi solution dafa am solo waaw il ne suffit pas ñu jël suñu loxo teg ko ci lii fi muy métti mais ñu wax clairement fan la ñu war a jaar ba génn parce que nag fu ñu génnul ñu génnul ci lii képp ku yaakaar ne Sénégal dina nekk si jàmm te gutt gii ñu nekk génnuñu si da ngay nax sa bopp képp ku yaakaar ne mun nga profito ci situation bi ni mu mel nii ah da ngay nax sa bopp kooku moom man maa leen ko wax léegi boo xoolee réew yi am problème yépp fii la ñu commencé waaw nit ñi di commencé négligé naan garaawul ku nekk naan diw la kële diw la kii moo tooñ kii moo tooñ ba mu mujj ah nekk loo xam ne lii nag wax dëgg yàlla kenn mënatu koo faj la muy mujj ay médiation internationale ku nekk di wax parce que de toutes les façons euh, monde bi nu mu tëddee guerre kenn mënatu ko gañe ci àdduna bi guerre lu mu tàng tàng tàng fu muy mujjee toog waxtaan waaw yéen a ngi suivre entre Russie ak Ukraine boo gisee doole Ukraine nu mu toll euh, doole Russie nu mu toll ak Ukraine nu mu toll ça fait presque combien d'années ñu ngi nii di guerre février bële la woon ba léegi kon nag eh, il faut absolument comprendre que mënul am solution mënul am te nit ñi indiwuñu solution waaw solution spontanée amul ñu toog rek yeewu suba ñu ne ça le problème est réglé amul mënul am ku nekk nag am nga sa position am nga droit am sa position war nga défendre sa position kële am position ba pare nag ñu def give and take give and take am loo bàyyi am loo joxe foofu lañ toll Sénégal ñu nag dinañ wax suñu position ba mu leer nañ ñu wax sortie de crise bi naka lañ ko gisee parce que c'est ça notre responsabilité Sénégal dañ ci bokk liggéey fii def tout pour mu mel nii mu mel waaw lépp luñ fi liggéey ci lu baax suñu loxo dugg na fi ci biñ koy fekkee yépp kon nag bu ñu ba toll fii suñu responsabilité du xambataal suñu responsabilité mooy fexe ba jàmm am moo tax cette position constante moom lañu ñu am waaw di ko proposer bu lépp lu yëngatu ñu yëng suñu kàddu ne leen attention lii fii la jëm waaw bi Covid bi amee gis nga mesures yi ñu ci def wax ay mesures génne 34 mesures wax ne fii la ñuy jaar ñu jóge fa gis ngeen situation bi mu amee ñu def lettre le 14 février wax leen attention ci dossier bi dossier bii ñun renseignement yi ci am dossier bi bu ñu ko laalee dina am des conséquences incalculables kenn dégguñu kenn dégguwul xam naa dañ naan ah waa ji day politique rek ñun passé nañu fu ñuy politiquer ñun on defuñu politique comme niñ koy defee ne dañuy def politique parce que dañu bugg am dara wala dañu def politique wala dañu bugg a poste ñun passé nañu foofu romb nañ foofu bu yàgg waaw romb bu yàgg yàgg yàgg waaw politique dix-huit ans dugg politique ànd ak professeur Cheikh Anta Diop ci principe rek kon ci loolu lañu ñu nekk ba léegi ñu leen attention bu leen laal dossier bi ñu laal ko mu def bruit bu mag deux mille vingt et un ñun foogoon nañ ne tiré nañu leçon yi pour trouver solution ndekete ñoom ñu ngi xaarat beneen meilleur moment pour ñëw diggante bi malgré preuve bi ñu leen administré ci élection locale yi ak élection législative yi ñu ne encore nañu yëkkatiwaat problème bi parce que simplement élection présidentielle la ñu jëm te président bi bëgg na bokk te bëggul président Ousmane Sonko bokk mu ne naa yëkkati voilà avertiroon nañu ñu avertiraat ne leen teg leen ci suuf nañu xool beneen solution dégluwuñu 31 décembre solennellement après discours président ma ne leen attention ci dossier bi dossier bi ak dossier troisième mandat bu ñu deful attention mën na indi problème ci réew mi waaw ñu wax ko expliquer ko clairement il y avait deux ministres de la république qui étaient là ñoom même ils étaient allés plus loin que le président de la république ne dafa war a bokk dafa nii dafa naa ñu ne leen attention léegi nag xew xew na yéen ñépp gis ngeen li xew xew na président Macky Sall premier essai def na ko mu réussir ci Karim mu def deuxième essai ci Khalifa Sall mu réussir mu def troisième essai mu të mu jéem jéem mu të xam na ne yombul parce que dafa am position de résistance bu ñu tiree leçon ci ni mu def ñeneen ñi kenn du nangu ñu def la loolu waaw ku dugal nit ci ci néeg génn yore jaasi buy tax deret mu ñëw dugalaat keneen génn yore jaasi pour tax deret bu na nee dugal da ngay bañ et c'est ça la vérité il faut il faut absolument le comprendre surtout nag dafa am yu nekk ci dossier bi yoo xam ne yi dafa tey xel bu doon dossier normal kenn nag du ci wax dossier normal bu teyul xel ñu jaarale ko fu ñuy jaaree dossier yépp kenn du ci ngang man maa lañ ko wax kon nag foofu la ñu toll jàmmarloo bi tar na ñaaw na ba pare nañu éviter mu gën a ñaaw ñaaw na ba pare métti na ba pare y a trop de morts y a trop de souffrance y a trop de division dans cette affaire la ñaaw na ba pare nañu fexe mu gën a bañ a ñaaw nañu fexe mu gën a bañ a ñaaw waaw buuxante ci pindum teen la le meilleur résultat bu ñu war a am mooy ne surux ci teen bi ñépp perte waaw buuxante ci pindum teen maanaam booru teen buuxante fa résultat bi nga mën a espérer mooy dugg ci teen bi loolu la war a éviter ku la wax garaawagul xamul lu xew gis ngeen ko événement yi fi am du ci dellu si parce que nettali xuloo xuloo la léegi nag foofu lañu ñu waaw ma ne boo yoree responsabilité politique am sa nawle bu am responsabilité politique même bu faxastaloo da nga ko war a gàttal waaw waroo ko gàkkal waroo ko gàcceel kenn du gàcceel kenn du gàkkal responsable kenn du ko gàcceel parce que dañu am ñu leen gëm am ay militant ku ci nekk leader bu nekk da am militant bu la gëm avec tes qualités et tes kooku boo ko laalee laal nga ay militant li nga koy gàkkal du la déglu waaw du la déglu li ngay gàkkal du ko déglu parce que li muy gis rek mooy da ko bugg gàntal waaw da ko bugg a gàcceel loolu lay gis loolu lay bañ donc foofu lañ tollu Sénégal kon nag ñépp xam nañu ne kenn mënul wax ne souci de transparence moo taxoon ñu yëkkati dossier Karim Wade ak dossier Khalifa Sall waxuma amul dossier transparence de waxuma amul affaire deniers publics de non dama ne aujourd'hui les faits montre que du woon loolu en tout cas moo doon motivation principale u ñépp xam na ñépp xam nañu ne dossier Ousmane Sonko motivation état bi du bëgg rek que le droit soit dit entre deux citoyens qui ont des problèmes ñoom loolu mooy seen position mais ñun loolu du suñu position pour ñun kilifa bu représenter dara ci réew même bu faxastaloo da nga ko war a gàttalu waroo ko faxatal waaw bu daanulee boppam def loo xam ne li moo koy génn ci champ politique bi loolu moom moo koy assumeel boppam peuple bi mun na ko arbitrer mais loolu doo ci dugg doo ci dugg doo ko accélérer doo ci def dara et je pense que loolu mooy problème léegi tante ngeen éliminer ko tante ngeen démanteler Pastef tante ngeen humilier Ousmane Sonko am na ñoo xam ne d'accorduñu ko man ci la bokk depuis le début loolu laa wax yéen d'accordu la loolu da ngeen ne c'est la justice moom moo condamné Karim moom moo condamné Khalifa moom mooy suivre son cours avec Ousmane Sonko ñaari discours la yoo xam ne yi ànduñu on n'est chacun s'est braqué dans sa position loolu mooy réalité bi aujourd'hui léegi nag lu ñuy def il faut que ñu wut pexe mënu leen wax a wax ba convaincre ñu ne dossier bi loxo état dugg ci wala defuñu ko pour élimination politique ñun mënuñoo wax ba convaincre leen loolu leneen le contraire que yéen da ngeen ko def pour élimination politique mais peuple bi moo koy arbitré léegi nag contexte bii ñu nekk nii est-ce que mun nañ ko fi àtte ba mu sotti ba ku nekk def ñu dem tranquillement ci élection yi moi je dis non ça n'est pas possible ce n'est pas possible parce que li ci rax mooy affaire troisième mandat bi moo ñëw compliquer situation waaw troisième mandat bi président de la république changé point de vue waxoon ne du ci bokk moom moo bind constitution moo ko sécuriser mu ëlbatiku changé position léegi nag bu changé position gars yi dañ naan ah non seulement bëggul kii bokk mais moom ci boppam dafa bëgg a bokk donc y une complication supplémentaire donc situation boo xam ne bii yow yaa ko compliqué mënuloo ko régler contexte bii nag dañu war fexe ba ku nekk toogaat nag. xool sa bopp parce que maa la dax yàq kenn du ci wujj ci réew maa la dax a yàq kenn du ci wujj ci réew maa la dax tabax la ñuy wujj rivalité nga indi sa programme kii indi programme nga ne ko man man li ma proposé éducation proposé woo ko mu ne la man li ma proposé santé moo gën li nga proposé éducation noonu loolu mooy werante politique waaye werante politique maa la dax a yàq dinaa la dóor mu ne la boo ma dóoree dinaa fayu ñuy reyante mu am ay moor ñuy enregistré ñëpp toog di seetaan loolu laa la ne kenn du ko defaree réew kon nag nañu def attention opposition bi dañu bokk benn combat mooy combat wu liberté démocratique manifestation yi seet koy doxalee waxtaane dañu bokk benn combat mooy combat processus électoral ni mu meloon yàqate nañ ko def ko quatre appuis yi may wax ba mu yegg si fii nañu ko defar opposition bi dañu bokk benn combat mooy fexe ba troisième mandat kenn dootu ko xalaat Sénégal ba koy def kon ce la pas moment ñuy xuloo seen biir waaw kooku moom c'est un appel solennel que je lance à tout l'opposition leader opposition yi ku ci nekk ni nga mel nga mel yaa am sa comportement yaa am say contradiction interne yaa am say qualité yaa am say défaut mais ñoom ñëpp dañu am ay militant ay góor mag ndaw jigéen ñoo xam ne dañ leen gëm ay xam ne dañu ànd dañu dugal seen xaalis Sénégal gëm leen yaakaar ne bu ñu yoree réew mi dina calme kon ñooñu war ñu leen décevoir ce n'est pas le moment opposition bi ñuy xeex seen biir il faut arrêter ça dina jot campagne bi dina ñëw ku nekk di nga am occasion pour wax ak wax sa défaut morom nga critiquer ko critique bu objectif ba nit ñi xam ne yow kii yaa ko ëpp crédibilité yow lañu ñu war a choisir mais loolu jotagul ce n'est pas le moment man am na opposition bi ñoo xam ne ñi bokkuñu position bokkuñu ni ñuy doxalee ku ci nekk ak sa façon bi ngay opposé yow li ngay def moom ngay assumer mais ce n'est pas le moment nañu arrêter il faut arrêter sax ay xuloo kii moo def lii kii moo def laa jotagul loolu waxam jotagul fi mu nekk nii il faut se mobiliser militants yi booloo nekk benn ñu renforcer F24 ñu ngi leen di féliciter président Mbodj président Sané ak ñëpp ñi fa nekk ñu ngi leen bi féliciter ñu rejoindre ñi rejoindre wul ñu rejoindre ñu organiser wu am un plan bu baax ñu félicite manifestation bi. gis nañ seen taxawaay ñu ngi ciy di félicité Mor Ndiaye bi ñu fa représenté woon def fa discours bu leer nañ waaw wane ne jàmm ji yëpp mu ngi ci loxo président Macky Sall bu taxawoon ne bokkuma ci élection yi jàmm dina am mais loolu passé nañ ko fi mu ne nii ku nekk braqué na ci position am donc ñaari parti yëpp kenn amul ci capacité régler problème kon nañu wut koo xam ne moo koy régler dinaa ci dellu c'est comme ça il faut arrêter dans l'opposition ku nekk mën nga critiquer sa morom ku nekk am nga loo xam ne lii mën nga ko reprocher sa morom mais ce n'est pas le moment il faut faire bloc autour de F24 opposition société civile les revendications démocratiques les acquis yi nga xam ne moom la Sénégal am ñu fexe bu mu bañ a perte loolu mooy wax bi kon nag dañu bàyyi loolu xel ku ñu yàkkamti y aura un débat de fond surtout sur toutes les questions waaw il y aura un de foofu ku nekk da nga préparer affiner sa projet de société sa programme mobiliser say militants def say activités waaw ñu def bloc ñam ay contradiction interne ak ñooñu c'est leur problème personnel waaw werante bi jaru ko amul werante amul werante ce n'est pas le moment Il y aura une campagne électorale de 21 jours. Chacun aura l'occasion de convaincre les Sénégalais. Faut kon nag je demande solennellement à tous les leaders de l'opposition de faire un cessez-le-feu général. Cessez-le-feu général. Waxuma la cessez-le-feu comme ça publiquement même en interne ci suuf waaw jëwante beeg yàqante der yeeg yooyu yëpp dañ ko bàyyi. ce n'est pas le moment si on rate cette occasion Macky Sall dina reprendre pouvoir bi delloo bumba ca boy boy ba et ce sera notre responsabilité il ne faut pas rater cette histoire c'est l'appel de l'histoire aujourd'hui on va reconquérir les acquis démocratiques fexe ba yenn yi kenn dootu ko ñeme wax sax Sénégal ba koy def waaw liberté droits et processus électoral troisième mandat ñu mun a jublu ci préoccupation sénégalais waaw béykat yaa ngi nii am nañu problème mu semence actuellement ci vivre de soudure yi bari bëri amuñu lu ñu lekk balaa la situation gis nga les pêcheurs xeex nañ fi reyante seen biir gis ngeen waaw gis nga ngor li fa xew moo chaque événement moo chômage bi gis nga ko xale sport bi nga xam ne sax ci lañu am ay succès on n'a même pas le temps de savourer ces succès la li ci gën a feeñ mooy affaire u détournement xaalis bi fan la dugg Covid baa ngi nii yépp tous ces problèmes là on doit le régler économie monde bi dafa jaxasoo gis nga situation bi am actuellement dans le monde lépp a jaxasoo prix yi di yokku lépp di yokku ñu war a industrialiser suñu pays war a def de grands investissement ce n'est pas la moment donc fermé naa parenthèse boobu opposition il faut vous mobiliser autour de F24 il faut arrêter de fair la guerre interne entre nous jaru ko <coughs> jotagul bu ñu demee ci élection yi ci campagne bi gën jot léegi nag lan mooy solution solution bi mooy càng nañu ñun am nañ suñu position on est inflexible ci position bi pouvoir bi dafa inflexible ci position ci diggante bi am na ñoo xam ne ñi ils ont des positions variées sur ça mais loolu ku ci nekk ak sa position mais li am mooy ñun ñëpp on est disqualifié pour trouver une solution waaw on est disqualifié opposition bi nous sommes disqualifiés pour trouver une solution le pouvoir est disqualifié pour trouver une solution léegi nag mu ñuy def Macky Sall jéem na ne day woote dialogue on ne peut pas reprocher ça mais woote bi ak ni mu wootee ak ni mu ko waxee ak ni mu ko defee dafa tax kenn mënul wóolu dialogue Macky Sall amul benn crédibilité c'est ça la réalité parce que fi mu jaar moo tax kenn mënu ko wóolu ku ci dugg rek yaa ngi ci loo xam donc cette solution là n'est pas viable moo tax les gens ont dit ku am liberté mun nga wax oui mais ku analyser situation bi non nga war a mais ça veut pas dire non au dialogue non une solution il faut trouver une solution le problème c'est pas le dialogue le problème c'est la solution il faut trouver une solution waaw bu dee koo xam ne kii galgal rek la mën bëre galgal rek la mën bu la nekkaa ñu bëre boo bàyyiwul xel galgal ba yow yow xam nga ne da ngay loolu moo fi nekk kon nag Sénégal am na ñoo xam ne ñi mën nañu solution Sénégal ñàkkul ñu mën a dox ba mu sotti te séentuwuñ ci dara lu intére intérêt Sénégal réew mi ñàkkul ñoo xam ne mën nañu dox jàmmi Sénégal ñu am crédibilité ñu ñëpp respecté ci pro ci opposition bi comme ci pouvoir waaw loolu. loolu loolu yow Sénégal ku ko xam xam ne am na bi ñu tolloo ci situation yu compliqué ci affaire processus électoral 88 moo am coow 93 yëpp dañu toog ndeysaan dem si yàlla Kéba Mbaye liggéey na ci lu nekk ah dem si yàlla Diayte liggéey na ci lu nekk bi ñu soxlaa ay généraux yoo xam ne dañu dañu dañu euh, tëddee njaxaanaay gis nañu général Niang liggéey bi mu liggéey honnête ak liggéey bi mu ci liggéey gis nañu général si Cissé kon Sénégal ñàkkul loolu bi ñu tolloo war a def assise nationale gis nañu taxawaay bi nga xam ne bii le président boobu taxaw na ko donc Sénégal am na ko am na sax ay hommes politiques yoo xam ne liggéey nañu ci politique ba yàgg léegi bàyyi nañu mais xam nañu situation politique même ñooñu c'est des gens am na ñoo xam ne ñu ngi société civile bi am ñoo xam ne ils sont dans le milieu ñun ñi nga xam ne dañoo far am des positions claires déterminées ñun mënuñu nekk facilitateur ñi nga xam ne dañu far ci pouvoir bi mënuñu nekk facilitateur mënuñu nekk initiateur de quoi que ce soit léegi nag facilitateur yooyu lañu ñu war a am man j'ai la naïveté j'ai la naïveté de croire que le Sénégal dispose de personnalités crédibles capables de parler à toutes les parties et d'obtenir de leur part des concessions, de trouver des solutions permettant de retrouver la paix et la sérénité pour qu'on s'achemine vers des élections libres et transparentes gëm naa loolu bu ñu ko buggee rek ko am ko buggee rek dinañ ko et pour ñu am ko nag il faut que l'opposition fasse un bloc am des positions communes sur les questions yi nga xam ne moo leen boole le plus difficile est fait les questions on les a circonscrites waxtaanee nañ ko et c'est ça qu'il faut ñu ut ci ay solutions. donc j'ai la naïveté de croire que ces gens existent ces ces personnalités existent il faut aller les chercher dans leur maison il faut aller les chercher dans leur champ il faut aller les chercher partout ils sont pour leur dire ñëw leen Sénégal moo leen soxla. dafa am benn divergence fondamentale bu am entre l'opposition et le pouvoir cette divergence s'est cristallisée voilà les raisons vous les connaissez maintenant dox leen ci pour mu sedd guy ñu mën a jëm ci élection yu normal li di wax dama ko xam j'ai fait de pays j'ai vu des pays yoo xam ne le redressement a été extrêmement difficile parce que y a eu énormément de problèmes kon nag loolu la ñu yaakaar waaw kon nag ah ku ne war nga am loo bàyyi pour ñu mun a génn ci situation bi mais na am crédibilité boo amee crédibilité rek loo xam ne ni mën nañ koo gëm dina am sincérité nga xam ne kenn du jéem a nax morom mu am ñu maanu ñoo xam ne nit ñi respecté nañu ñu teg lépp nag ci yoon. muy dossier judiciaire muy lépp ñu teg ko ci yoon parce que yoon moom mooy doxal mooy doxal am na ñu ciy dox am na ay facilitateurs yu ciy dox de man de xeebuma li ñuy def parce que am na lu ma ci xam ñoo xam ne du ñu sonn du ñu tay mais Sénégal boo commencé tudd tur rek dañuy naan mooy dafa far dafa def nii dafa def naa man faraluma kenn Sénégal la far kon nañu fexe choisir leen gis nga dans les cours d'arbitral dans les cours arbitral pour régler les litiges qu'il y a dans entre les sociétés mais naka la ñuy choisir le collège arbitral benn parti bi day indi benn arbitre bu mu wóolu beneen parti bi indi arbitre bu mu wóolu ñoom ñaar ñu ànd choisir le troisième arbitre waaw mu présider loolu moom nañ ko def y a d'autres yu ñu war a utiliser ku nekk indi sa arbitre ne man kii laa wóolu kii ne kii laa wóolu ñoom ñaar ñu dajaloo daj indi kenn ne kii lañu wóolu voilà la solution bu ko defee nag ñu teg lépp ci yoon li ñu war a rectifier yépp ñu rectifier ko droit de liberté yépp ñu respecté ko wax dans quelles condition lañ ko war a exécuter droit de liberté sa veut pas dire que neex mais boo poussé nit ba mu war a résister aussi lépp lu xew dañ ci am part de responsabilité loolu yomb naa rek génne prisonnier yi indemniser ñi ñu war a indemniser ñëpp ñu ci yàqule ak ñi nga xam ne dañ leen ci tooñ presse bi ñu protéger ko dañu war a protéger presse bi presse bi lépp ngi ci biir y a du bon y a du moins bon mais dañ ko war a protéger mettre leen dans des conditions yoo xam ne dinañ nekk en sécurité dinañ mun a informe les gens ñu encadrer leen mieux parce que information yi dafa am solo am na loo xasee bu xasee bu génn ce sera difficile à rattraper kon ça c'est clair c'est important presse bi protéger ko réparer préjudice ba pare on laisse le peuple choisir c'est ça le principe Le principe, c'est de laisser le peuple choisir. Le peuple choisir. C'est le peuple qui doit choisir kan moo koy diriger. Comme voilà les raisons pour lesquelles ñu mënuñu d'accord yenn situation yi kon nag ñu ngi leen di sant yéen ñépp di leen gërëm bu baax di dellu si di jaale ñi nga xam ne ñii ñépp ñàkk nañ seen bakkan di si jiital xalif général xadra sëriñ Cheikh El Bakaay Kunta di ñaan yàlla mu taas ñu ci barkeem di jaal sumu militant bi génn àdduna soxna bint Thiaw Grand Yoff ak Njagañaaw di jaal soxna Léemu Ndiaye di député bu Thiès bu PDS di jaal ñi nga xam ne ñépp faatu nañu ci manifestation yi di ñaanal blessé yi ñu jóg ak jàmm prisonniers yi ñu ñaanal leen ñu génn ci événement partie bi rappelé nañ ko tout xalif bi vraiment ku baax la woon ku am humilité ku ñëpp dégg la di ñaan waa parti bi seen liggéey ñu continuer ko ni ñu koy defee di féliciter Mor Ndiaye di féliciter waa parti bi yëpp di leen wax ne anniversaire jëngu tabax cinq ans ngeen dox te ñaaw leen ci terrain politique bi ñu ngi leen di féliciter waaw collectif des cadres taxawal nañ ko le 6 mais président Sissoko ñu ngi lay féliciter ak bureau bi ñu élire yëpp ak ñi tab ñuy tab ci commission yi. collectif des élèves et étudiants le 19 le le 29 renouvellement instance su parti bi comité directeur ak euh, bureau politique bi le 29 la ñu war a jublu ci congrès bi diggante bi dinañ def dédicace Paris le 17 ñu ngi sant bu baax gladiateur ñu ngi sant bu baax même Ousmane Ndiaye ñu ngi sant bu baax président Fadel Mbacké ñu ngi lay le 27 Harmattan dafay def dédicace su livre bi na cadre yëpp ñëw ñu toog waxtaanee ko ñu préparer le premier congrès ordinaire en juillet et jublu nag ci tournée yi nit ñaa ngi ñuy laajte fu nekk mais lu jot yomb lépp lañuy ñuy ñu ngi ci yoon bi kon nag euh, gis nañu. suñu waa parti yi nga xam ne ñu ngi ci F24 seen taxawaay Aziz Samb soxna Ndeye Awa Dieng ñoom Cheikh Fall yëpp écho yi ñu jot daal vraiment kontaan nañu trop ci seen liggéey gis aussi euh, sëñ Sadibou liggéey bu muy liggéey ci parti bi ak groupe com bi ñoom ñëpp ñoom Momar Ndaw euh, ñoom Ibou Kane ñëpp fu nit ñi nekk rek. ay conseil ñuy joxe bind yëpp yëpp ñu leen di sant bu baax di leen gërëm fàttewuma kenn su ma limee damay jub waaw ñoom Ibrahima Ngom xale yëpp kenn taxaw waaw ñoom ñëpp soxna Yaasin ah ñoom sëñ Bas tout le ñu ngi leen di sant daal tey daal vraiment kontaan nañu trop di leen wax ne loolu mooy résumé Sénégal toll na diggante. diggante bi li ko indi xam nañ ko waxoon nañ ko bu yàgg kenn dégluwuñu léegi yegg si na foo xam ne fii graaw na léegi nag graaw na ñun suñu position leer na te ñu d'accordul ci ni Macky Sall di doxalee di faagagal opposition d'accorduñu ci dialogue bi mu woote d'accorduñu ci ni ñu ko wootee parce que wóoluwuñu suñu position c'est clair nous sommes la répression, nous sommes pour la résistance, nous sommes contre les emprisonnements, nous sommes contre la volonté bi ñu am pour gàkkal Ousmane Sonko pour faagaagal fexe ba lu bokk ci élection yi loolu d'accorduñ ci d'accorduñ ci ni ñuy démanteler parce que d'accorduñ ci liberté ak droit yi nga xam ne yépp ñu ngi koy xaj opposition d'accord nañu ne dañuy def dynamique bu rëy autour de F24 d'accord ñu waa opposition di xeexante seen biir ce n'est pas le moment nañu fexe teer seen divergence dinañ am occasion ci élection yi ñu fexe nekk benn fexe empêcher troisième mandat am léegi nag comme situation bi tendre na nii ba mu am ay mort kenn mënul toog rek bu am solution spontanée il faut am ñu ci dox kon nag nañu jox facilitateur yi ñu dox ñu suñu sunu facilitateur pouvoir bi ut facilitateur am ñoom ñaar ñu ànd ut facilitateur ñu booleeg ñeneen ak ñeneen ñu fexe ba waxtaanee ko ut ay solution yoo xam ne dina tegu ci yoon ñu respecter droits et libertés yi indemniser ñi ñu war a indemniser euh, rectifier li ñu war a rectifier ba ñëpp mun a participer ci élection yi sénégalais yi ñoom ñoo war a choisir seen président ñoom ñooy seet kan la ñuy jox seen présidence foofu la ñu toll kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Euh, di leen wax ne ñu ngi leen di jox rendez beneen yoon jërëjëf merci beaucoup.